Abdoul Aziz Diaw du nit yàlla ku màgg ku makkilee di borom rus na maa xam góor muy am gàcce ci kaw lal rus na maa xam nit ñi di ko jàpp ci mystique rus na maa xam nit ñu di ko xeex ci baatin waaye rus na maa xam nit muy dellu ginnaaw rus na maa xamanteeg nit ren ba déwén gaa ñi di ko yërëm kooku mooy Serigne Abdoul asis Diaw ay numéro mi ngi noon di affiché ci baaro écran bi ngir mën a jokkoo ak moom lépp luy fajum plante lépp luy ñaan yàlla jokkoo leen ak sëriñ Abdoul Aziz Dia gannaaw ba 9 jotee ba teg 33 minutes fële ca Medina Gonaas jàpp Medina Sabax asalaamualeykum. yéen a ngi euh, déglu rajo bu mag bi bile ci émission bu mag bi bile ngeen ànd ceeg euh, animateur yu mag yi yile. Alaaji Sanjogu Beng ma jigéen Jóob ak soaay bu gërëm leen bu baax a baax Mamadou Makhtar Sarr mooy jël nuyoo bi ne moo jëm ci région koy jox mu daal ñu koy yóbbul bu ñu jaaree nag ci groupe yi nga xam ne dañ a baax Alaaji Katim Cissé ak Ilimane Diop Cheikh Ndaw président ak ki nga xam ne moom mooy euh, Abdoulahat Ndoy ak Ibrahima Diop ñooñu ñoo yor liggéey bi nga xam ni daanaka ni bari nañu nag waaye ñii la ñuy lim ñu daal di yóbbaale ñi nga xam ne ñoo ne ci internet bi tey tasaare liggéey bi jërë ngeen jëf sama gars yi Abdou nag moo nekk foofu la ca euh, production Sandiogou moom moo ñuy séddaleel émission bu mag bii nag ki leen ciy gunge di xayoo xayoo nag xam ngeen ko defe naa ne miin ngeen ko yéen sénégalais muy opérateur boo xam ni tabarkàlla téléphonique la euh, application bi ngay am après ma jigéen dina la jox numéro téléphone yi nga xam ni ginnaaw bi nga téléchargé application bi dangay woote foofu nga joxe sa carte d'identité ñu identifier la sa numéro nga am sa numéro di woote di wuyu comme ñëpp boo amee connexion réew moo mën a nekk ci àddina bi moo mën a nekk rek te am connexion am nga possibilité pour mën a woote moo xam opérateur bu waaye mën a bokk ak téléphone bu waaye mën a am yow soo yow nekkul ca téléphone ba mu am yow daal amal rek di nga mën a woote ci mboolem puce bu mu mën a am fi mu wuute ak whatsapp alaaji wax na leen ko whatsapp moom whatsapp rek la mën a woo waaye application bii moom boo xësee am connexion di nga mën a woo téléphone yëpp android bouton simple téléphone yi njëkk ya téléphone yi maam ya lépp lay woo na am puce daal ki ngay woo mu ngi noonu moo ñu gungee ci euh, jommet di émission bu mag bi le alaaji Sanjoogu Mbeng xaritu sëriñ Siidi moom sëriñ Abdul Ahad Mbakke ca Touba di xarit ci sëriñ daara yi alaaji maa ngi lay nuyooti sooy bu ñu ngi lay fay ñu ngi lay ziar di la ñaanal jàmm di am mbégte ak yow jaajëf di dem ba Touba di nuyu xam général des Mourides Serigne di ko ñaanal jàmm. di nuyu bu baax sunu sëriñ sunu xarit. sëriñ siidi mu sëriñ Abdou Lahad Mbacke. Mbacke di ko ñaanal Mbacke mu yàgg fi lool te ànd ak wér. ñu ngi koy ziar wér sëriñ Sidi. Mm. di nuyu sëriñ Xaadim Fall nekk ci kër ga sëriñ Xaadim ñu ngi lay nuyu. Mm-hmm. waaye di nuyu bu baax a baax. sëriñ Abdou Karim Mbacke borom Makarim Ahla di nuyu kilifa diine yi yewoo ci biir réew mi yëpp lew nañu seen Medina Baye Tiwaawan Njaasaan Laayeen Ceneba àndu laay di nuyu bu baax a baax euh, waa jaamal ak waa kër euh, maam alaaj njëgeen ca Thiès ñu ngi koy ñu ngi leen di nuyu di leen ziar mm-hmm. di nuyu bu baax sunu mbokk jàng bi di nuyu bu baax Cheikh Bara Ndiaye borom def gis di nuyu sëriñ Medoune Sey borom taw feex di ko ñaanal jàmm di nuyu bu baax a baax Euh, ki nga xam ni moom la ñuy wax xalif général kullu raasatukatu tool di ko nuyu moom ma jigéen Diop di nuy bu baax a baax euh, tamit euh, di wax gars yi comme ni nga ko waxee rek sooy bu ci hayoo waaw di wax ni macha allah mhm. dafa avancé ci wàllu technologie avancement boo xamante ni bii moo permettre loolu am parce mhm. que ñu bari mhm. jàppuñu woon ni wax dëgg fa yàlla war ngaa mën a yor téléphone boo xam ni du am puce du am puce ba noppi ci kaw amul puce mm-hmm. nga ba noppi nga am sa numéro mm-hmm. ba noppi di woo téléphone yi am puce mm-hmm. lool nag day wane xayoo fi ñu toll ci technologie maanaam nañu soree ci wàllu technologie ak nañu nekkee ay kàngam mhm. kon moo tax gars yi ma wax leen ñu daw gaaw wutali ko mhm. moodu moodu ya nekk bitim réew moom kontaan nañ dañuy woo seeni jabar yi di woo di ree di xalaañoo <laughs> ah. di wëndeelu di ah. woo bay périer ay déggatuma la connexion bi daw na moom ah, amatul xewee na amatul macha allah ñu ngi leen di ziar bu baax di wax ni xayoo daal xayoo mhm. xayoo xayoo am na ko ko wayoon Hiyo <laughs> jëlal lay ngay asalaamaaleykum wa rahmatulah maa ngi lay fay alaaji du nuyu son yu bu di leen euh, ñaanal jàmm di ko ñaanal ñëpp dem ba diwaanu Thiès kay benn dëkk ñaari gaar nuyu leen <laughs> ziar leen euh, nuyu suñu mbokk yëpp képp koo xam ne rek yaa ngi teewlu 99 point 0 mm-hmm. nuyu ñu ñuy suivre tamit si Facebook bi mm-hmm. vraiment ñu ngi leen ziar bu baax a baax nuyu euh, suñu mbokk sàmmkat yi ak baykat yi mm-hmm. ak képp koo xamante ni nii rek fépp foo mënti nekk rek son yu bu ak loo mënti liggéey jamono ji yi mm-hmm. ñiy jàng ak ñëpp bàyyiwuñu kenn ñu ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah di nuyuwaale nag waa kër Mame El Hadj mm-hmm. Ndiéguène bu nag euh, fële ci Ceskaay benn dëkk ñaari gaar ñu leen ziar bu baax macha allah mi ngi noonu xam nga Cees nag boo gisee bëgguma leen wax dara ma jigéen mm. dama faa am ab sëriñ numéro yi waaw sëriñ boo mm. xam ne moo tax mënu ma leen wax dara mooy sëñ Habib Gaye waaw mu xaddamu Cheikh Seydi Mansour Sy waaw sëñ Habib Gaye ñu ngi koy nuyu bu baax a baax ñu baax a fa ne dëgg yàlla ñu baax ko tegoon foofu ca Thiès ni ko ni ko doxalal te ba léegi macha allah ma ngay doxal aca ana numéro xa yooyu waaw sooy bu kii de Khadim Ndiaye la moom rek si yàlla nekk moom tamit mën nga ko woo ci 00 39 328 145 33 36 Omar Sey

85 Fallou Ndiaye moom itam 0039 320 744 79 35 son bu yooyu leen numéro ku si woote rek. incha allah da nga leen jot si kattanu yàlla. léegi euh, numéro beneen bi bi nekk fii service commercial joxe parce que boobu gars dañu may woo lu bare bare bi Eric Da boo si wootee di nga ko jot. mooy 77 11. 11 99 99 77 357 11 99. waaw boobu moom kon gars yi dañuy woote ñuy woote ci après numéro jommet bi di laajte kon numéro baa ngoog. d'accord ma ngoog euh, tey loo indi. ñamale gi waa ñamale gi sooy bu maa ngi léegi ñu ne. Mhm. Euh, am na conseil bu ñu war a amal te bëgg nañ képp koo xamante ne nii euh, ancien ministre nga. wala ñu fal nga nekk député. Mhm. ci ñaari mandat tegloo. dañ leen war fay ay dix millions xawma ak ay salaires yoo xamante ne nii c'est énorme mhm. man loolu dégg naa ko tey ñu ñu ñu wax ko mu nekk. conseil bi la ci conseil lan la. président moom moo ko war a amal. ah d'accord léegi nag euh, ñuy wax ne euh, dëkk bi métti na métti boo xamante ne nii est-ce que tamit jaadooti na koo xamante ne nii dem nga retraite sooy bu nekkatoo ministre. Mhm. ñu lay jox ay salaires yoo xamante ne nii. am na ñu ko gën a soxla fuuf te joxuñu leen ko. du dëgg xale yaa ngi nii bëgg liggéey mënuñu koo am. non xale yi ñu jox leen quatre cent quelques milliards am ma jigéen luñ soxlaat yéen nag xam nga ma jigéen nag yéen ndaw ñi jox nañ leen quatre cent milliards yu teg. 400 milliards yu teg est-ce que ñëpp mën nañ mën nañ ci ah gis seen bopp Sénégal ndaw yi du du Dakar du Dakar kese de ah région boo dem am na jeunes yu fa nekk daanaka ñëpp fa liggéeyul bu dee région Saloum bi moom foofu nee nañ lépp baax na lépp nickel <laughs> loolu waxuñu foofu moom alhamdulilah ñu waxuñu loolu façon ah! yi bu loolu ñuy def noonu tourisme baa ngi nii depuis corona bi dugg Sénégal ba tey dafa sooxee ñi ñi ñi nga xamante ne nii doon nañ leen liggéey ci eh, hôtel yi ñoom ñëpp daanaka affaire yi doxatul woon dañu mujjee leen licencier ñu dem ñibbi seen kër est-ce que mënuñu dugal foofu noonu xaalis bi tamit euh, pour ñu mën a dem liggéey dégg naa tamit euh, directeur hôpital bu nekk Linguère. waa ji démissionné na démb. Mhm. Euh, am ñu wax ne daf yoon la bu démissionné. waa ki jiite woon hôpital bi liiri amee woon. waa te il paraît que il paraît que moment bi accident bi di am. Mhm. moom nekk fa woon mi ngi woon tuubaa nee nañu nag bu muy tudd tuddul ministre euh, Abdoulaye Diouf saa parce que moom it xam ministre bi demoon na fa si samedi bi. Mhm. moom tamit tudd ko fa mu nekk ay coow yoo xamante ni dafa mel ni ay dégg ñàkk a déggoonte dafa am si seen biir parce que kii bi muy tudd Eva Marie Coll xam Eva Marie nekkoon na fi yore woon na fi santé bi mu nekk lu yàgg lool. te jàpp naa ne euh, santé moom euh, bu fa xiiroo ŋaayoo amee rek malaat yi ngay faj sax est-ce que di nga leen mën a faj ci ci ci yoon mooy waral parfois accident yi di am. te mhm. yàlla na fi yem nag mu bañ fee amati. fa dëgg yàlla mangoog euh, ma jigéen li nga wax ci conseil boobu nga xam ne nee nañu président nga wax ni moom moo ko woote moo ko bëgg a woote nañu war a euh, pour bëgg cee conseil mboolem ko xam ne ancien ministre ancien ministre nga wala nga nekk député nekkoon fi député am ñaari mandat yoo xam ne yu tegaloo la dañ leen fas yéenee fay d'accord ay salaire waaw euh, man moom li ma jàpp ma jigéen ci jamono ji waxoon naa ko ci sama benn vidéo mm-hmm. mooy président Sall lépp lu mu defaat ci ñetti at yi ko dese mm-hmm. man soaay bu sama li ma jàpp ci sama xel mooy waa ji day politique maanaam deful dara pour xay na euh, lu avancé wàllu politique wala lu avancé réew mi man dama jàpp ni lépp lu mu def jamono ji mm. day politique maanaam am na lu muy am na lu mu nar am na lu muy teg ci kanamam ndax mënu ma euh, comprendre ku koo xam ne ñetti at la ci réew mm. ngay fàqat ay ponkal yu nekkoon ci opposition bi mm. di leen dugal sa biir gouvernement muy benn di defaraat ay réforme yoo xam ne doo comprendre lan la ci jublu kon lépp lu mu def jamono ji dama jàpp ne am na lu mu nar Euh, bu dee ndaw xëyu ndaw yi nag moom ma jigéen moom ndaw ñi moom bu ñu yaakaaree ci yii ma gis nii tàkk nañ ba jeex waaw ku yebu daal ma jigéen mhm. nekk ci li nga nekk créer sa yëfi bopp sinon boo amee yoon nga génn mhm. waaye lii ma gis ci réew mi nii bu dakkut mhm. ndaw ñi moom tàkk nañ ba jeex euh, li nga wax ci liir yi nag man moom position ba ma ci nekk woon keroog comme dafa nekk ci ab enquête euh, foofu laa cee taxaw ba léegi parce que version yi dafa bëri yenn saa yi nga xëy dégg lakk yenn nga dégg ñu ni leneen la problème bi dafa bëri kooku nag démissionné ak lu mu ci mën a doon xam naa enquête bi dina leeral lu tax mu démissionné ah, euh, kii kilim bi mën na am moom moo ko moom moo ko sooke dindi épargné nañu loolu waaw moo tax ma ne version yi moo bëri quoi bokkatu ñoo ñiy enquête ñoom ñoo ko wax fi doon ni kay leneen la ñuy wax waaye nekkul kii bi kilim yi kon jombal xam naa bu enquête bi jéenee jeex dinañ xam ak ki lu tax mu démissionné ak fan la ko fekkoon ak it négligence ndax amoon na ci njoogu mbay njoogu mbeng njoogu mbay <laughs> alaaji waay eh, juum waaw ah, daa juum rek mbay sant la daa am sant yëpp macha allah njuumte la waaw eh, gis nga bi nga waxee kii li yi bu njëkk wax loolu mooy xalaat bi nga xam ni moo ci ne de parce que boo seetee sony bi def na ko ci façon pour jéem la coq pour jéem la yëngal loolu moo tax mu génn fi mu génn daal ne la xale yi jox nañ leen waaw nàngam kon kañ bu ñu waxati dara. wax dëgg yàlla. <laughs> loolu mooy li nga xam ni ci lañ bëgg a profité pour defar ñoom ab gën a defar seen ak nekkin. te fekk mm-hmm. mbirum xale yi sax yitteelu leen. Mm-hmm. Euh, bu ñu waxee ne ña ngay def léeg-léeg rek bu ko defee bu ñu ah, mm-hmm. kii la son yi bu wax noonu. waaw noonu la nit ñi wax boobu am na ñoo xam ne boo xam ne ah ñoo ñi ngi defaral xale yi léegi ci kaw ñuy defar xale ñoom ñu defaru. gën a jekkas ndiku <laughs> ba buñ fi jógee ëllëg tamit <laughs> lañ doon gañe multiplier wu maanaam gën a tee neex ca ñoom. waaw xam nga loolu moo njëkk a nekk loo xam ne maanaam ñoom seen ñoom ñi nga xamante ne bi non seulement. Uh-huh. dañoo bëgg ci jamono jiñ ñu leen joxee réew mi ngir ñu liggéey liggéeyuñ. waaw ñuy lekk alalu réew mi mais bu ñu demee tamit ba nga xam ni tamit. liggéeyuñu ba war a tëdd. ñu continuer di muucu réew mi. Mm-hmm. bu ñu demee ba jeexal di bu ñu demee ba jeexal continuer di mucc réew mi nga xam ne moom moom ñi moom ba sex ween wi duñu yàbbi ah. dañuy nàmp rek duñu fer ñii dañu fer ñii dañoo bëggut a fer <laughs> fer lañ jot def ñi bëgg ween <laughs> te mën a nàmp mën a muuc waay te am keneen ko war a judd alaaji yow ñeneen judd amuñu liggéey nga ne non man moom ween wii du ma du may muuc loolu la de mbir mi yëpp loolu la dañuy bëgg gën a continuer di muucu réew mi wallaay wallaay léegi ginnaaw ñun ñu jotoon a muucu ba tax mu muucu moom mënatuñ koo ba eh. léegi nag bu ñu demee ba war a toog mm-hmm. te li garaaw mooy ci jamono ji nga doon liggéey sax mm-hmm. jamono ji ngay noppalu nga war a ëppale la nga waroon a am ah. loolu moo njëkk tey sax jaadu fa mm-hmm. dëgg la da dëgg jamono ji nga xam ne bi actif nga xanaa sax retraité nag boo retraité ah. xanaa sax ñu xaaj sax lañ la waroon mais nag ñu bëgg nag duplee ko wala ba multiplier ko par nàngam alaaji du waa ji nag loolu lépp tamit alaaji nga baal ma du waa du waa ji dëkk Thiès mi ngi nii 2004 la gëjoon ci administration ah, bu Sénégal ba léegi te keroog bi mu defee déclaration patrimoine am ah. defe naa ñi ko ëpp xaalis ci Sénégal bariwul léegi fan la jëlee xaalis lu mu doon liggéey ko fenn liggéey dara dañuy war naan consulté te moom it tamit dina bokk si ñi ñuy fay parce que parce que ancien ministre la soo ah dana bokk si ñi ñuy fay parce que nee nañ ancien ministre yeeg député yeeg kon donc dafay lu mu doon am day gën a yokk rek li may wax mooy waaw wallaahi musta consulter kenn ah. du consultant dara ñoom ñi ñëpp di lambar lambari naan consultant lañ du ñu tudd tur président bu ñu tudd boo xëyee weddi <laughs> duñ tudd kenn dañ naan consultant rek ku ci jóg nag lu ye fenn ne cabinet cabinet bu kenn du ñëw <laughs> ah non mais nañ ñu dimbali nag quand même nag. alaaj yooyu nag alaaj te nga leen ay consultant lu ñu consulter. ah mais allah ñu si bëri ay avocat la ñuy doon. Ah, dañuy yor ay caméra ñenn ñooy avocat Idrissa moom du avocat. ñenn ñi am nañu eh, alaaji dañuy liggéey am na ñoo xam ne ay. Madi Kenya ah, ah. mais mais mais avocat. Madi Kenya ba mu duggee ci nguur ak léegi mës nga ko gis mu plaider kenn. <laughs> Eh, am na ñu ñu nekk seen avocat. non ma ko. ah ci nguur. waa léegi mu duggee ci nguur ba nag. est-ce que nekkul avocat buy lu mu coordonné. waaw yor na mën cabinet am ñu. ban cabinet mais <laughs> yoruñu benn cabinet. <laughs> yàllaa ji nag ñoom benn cabinet lañ yor. en tout cas moo nekkoon seen métier daal moom. wax dëgg yàlla kan moo nekkoon métier. non même bu dee maître ma di kii amoon na métier avocat mais Idrissa Seck lan moo nekkoon métier. ah ma lan la doon liggéey. kii kii la wax Idrissa Seck la wax. lan la doon liggéey. 2004 la gëjoon ci administration. 2004 2004 di dugg avion di dem ak ñëw. Ah, lambar lambar hôtel bu ne nga ne fa naam daraame fu ne nga naan fa café bu ndeelu sol costume gars yi di la dal foo jógee oto yi wër la ana alal jooju foo ko jëlee. waaw dañu waxante dëgg nag quand même. Ah. Ah. ah. c'est que tamit ñun. xam naa ne gars yi naa leen defal benn rappel boo xam ne Mame Mbaye Niang mii di wax tey. lu ñu dal dagan naa. waaw mais El mambay ñaa de nee na affaire jeexagul de. Mame mbay Niang. day na day porter plainte. ab Karim Gueye buy soog a jóg la. nee na affaire nee na Sonko bu jàppee ni day porter plainte Karim li Karim wax ne amoon na ñu mu dem. loolu la koy porter plainte. na ko porter plainte. <laughs> non Karim def na vidéo ah. parce que dañu woon dañ koy wër te Karim def na vidéo dem nee na kenn wëru ko. <laughs> kan moo ne dañ koy wër. dafa am site bu bind nii Karim ñu ngi dañ koy wër pour am amuñ ko kii. ci li waxoon waaw. mais démb def na vidéo leeral. waaw mais mais mais Mame Mbaye mënut a porte parce que Karim daf ne am na ci ñu mu jaar. Mhm. wala déedéet. Karim da ne Mame am na ci ñu mu jaar. pour. <laughs> yaa ngi dégg. pour faqar fa euh, kii dem ci Sonko <laughs> lool lool la Karim wax n'est-ce pas. Karim da ne Mame dafa am ci ñu mu jaar ay grave yu nekk États-Unis Karim dañ koo wax. waaw. ñi ko wax ñi nga bitim réew n'est-ce waaw lañ ko wax nag ndax lu am la wala du lu am. waaw est-ce que comprendre nga. mais Karim waxut ne Mame Mbaye moo ma wax. waaw mais nee na waaj na wuyu ji dama laaj. waajal nee na Sonko na wuyu ji force. kooka la. Mame moom xamut fu muy teg tànkam. <laughs> alaaji xale ba muy wax la rek. waaye alaaji yow ñëpp xale lañ. ñu yàlla gone <laughs> ñoo xam ne ay booy lañ quoi billahi <laughs> booy la rek booy booy buy wax rek. mooy bu te nee na la amoon du amaat de te dina wuy ji force. mooy la amoon da caa yëg dara ba mu amee dafa daw. maanaam la amoon du daa yow xoolal booy juddoo la fi nga dem ba pare di daan ak kama kii woon. ak kama ak. waxi mi ngi doon xam naa dina defal gars yi benn rappel ca fële na le ca roq ba. ndax am na lu mu fi yëkkati woon kàddu yi am am solo teg ko ci Idrissa Seck ci alal ji mu war a leeral ni amoon na ko yooyu yëpp gars yi daal fàttewuñ ko naa faaw ñu def ci ab rappel. incha Euh, ñu ngi nuyu nag Xalilulaa euh, mi nekk ci digital bi xam ngeen ni Facebook bi jamono ji ma ngay ma ngay toj dem leen ngeen abonné di partager tey amee ñu ngi nuyu Xalil euh, Ibrahima ak ki nga xam ne mooy Jéen voilà jaa ngeen jëf yéen waa digital ma jigéen oui son bu xam naa ni fii ak suba yaa ngi fàttaliku jommet bi ñu fi amoon te waa ji xëy ni meng ak fas wam yoroon di liggéey te bàyyi jabaram ak doomam ca dëkk ba yaa ngi fàttaliku fii rek soriwul ah waaw waaw waaw. te mu koy jël fas wa dem dem dem ñu koy wër. waaw affaire yi fas bi sax moomu ko woon dañ ko doon liggéeyloo. exact loolu bu soobee suba ak jàmm dinañ ñëw am na ay leeral yu ci am am na yenn évolution yu ci am. waaja daal woote na. Ah, waaw waaw dina am yu ci am suba. soobee yàlla. Euh, ma jigéen dañuy delluwaat kafrin Kaffrine waaw. Hmm. keroog bi président Sall wootee daal kafrin dañoo délégué woon benn waay mu dem ñu bindal ko ab discours ci aw këyit xaatim ko ci ni ko boo demee waxal ñu lii président. Hmm. lan moo ca mujj xew nag Baye Assane woo na ki nga xam ne moo wax ci kàddug ndaw ña yebaloon waa jooja ca président keroog ca jëm ñaajo Euh, ku baax ki noo def. waaw salaamaaleykum wa rahmatulah. yaa ngi si jàmm bu baax. ana la doonoon sa yitte. ma yitte mooy man maa ngi tudd Abdourahmane Cissé. Ah. dëkk ci région bu Kaffrine département bu Mbirkelane waaye particulièrement commune bu Diama. Mhm. suñu borom dogal ñu am yitte boo xam ne moom dafa mat yitte lool sooy bu. mooy lan ndax ñun dañoo dëkk ci région boo xam ne région bi gën a ndóol ci Sénégal. Hmm. muy région de Kaffrine. ñu am rencontre bu toll ni tase la république. nga xam ne wóorul dund wala déet surtout ci région bi. Mm. donc président ne damay wutal ndaw ñi xëy. yéen ñi nga xam ne yéen a jiite jeunesse bi leen ñu toog waxtaan naka la ñu def pour am xëyu ndaw ñi ñu am taux de chômage boo xam ne kenn amu ko ci Sénégal mooy quatorze pour quatorze pour cent ci Kaffrine donc loolu nekk loo xam ne lu doy waar la ñu am ku ñu dessiner jour bi nga xam ne moom la président war a tase ak ndaw ñi ñu koy wax Baye Ndiogu mu jiite jeunesse bu Kaffrine suñu borom dogal bi ñu ñëwee waxante ak moom li ñuy waxante ak moom wax ko li nga xam ne lépp moom la Kaffrine manqué ak naka la ñuy def pour indi saafara ci xëyu ndaw ñi bi loolu amee Baye Ndiogou bi mu ñëwee li mu def mooy dafa politiquer affaire bi ndax ku nekk xam na ne booy la ci Ablaye moo nekkoon kudd nekk actuellement ministre bi mu ñëwee ndax dafa dafa am loo xam ne soe bu kenn xamul nan la tudd ndax ñëw ngi wutal ndaw ñi xëy nga taxaw ñeneen ak ñeneen nekk Kaffrine nga ne ko may nga ne président mayo ma nuyu sa jàmbaar ji kan mooy jàmbaaram ji ndax loolu moo fa indi nit ñi déedéet ñu jógee ci loolu mu daal di taxaw ne président Kaffrine gongo ñu ne ko Kaffrine wanaa gongo loolu na leer ci sa bopp mu tax taxawaat ne président li nga defal Kaffrine defoon bi ñu nekkee Kaffrine ba léegi yow rek yaa ko defal sa Kaffrine ñu koy laaj lan la président def Kaffrine ñun Kaffrine ngay gis nit ñoo koy bokk mënul génnee mooy ci moom a ba mu jëlee kàddu la mu wax ay waxi boppam donc dong la. bi ñu bi mu jëlee kàddu la mu wax ak ñun la ñu bindoon pour wax ko président loola moom saanaare dara bokk ci moom waxu boppam la fa wax. ay waxi boppam. ndax moom dafa nekk koo xamante ni day politique pour ñëpp nga fa woon ñu ñëw toog parce que président ni ci waa APR amee parti mënu nañ ci amee parti pour mu amee droit pour ñu moom mu war ñu defar war ñu créer emploi donc suñu borom dogal loolu ñu jox ko seen mu ñëw wax la ko neex daal di jël affaire bi politique ko président. waaw ma ne. président Kaffrine Gonga. président li nga def Kaffrine kenn mësu ko faa def lool de xanaa aayut wala daa aay. parce que président dafa defut Kaffrine dara ba mu wax ko ne ko li nga fa def kenn mësu ko faa def. est ce que ni moom la gis ba mu ne na moom ci ne boo demee eh, université Sine Saloum bi ñuy wax université Amadou Mahtar Mbow moom moo nekk deuxième foofu eh, recteur bi moom moo nekk deuxième xale la boo xamante ni Ablaye Sow moo ko jël jiital ko ci dara. kon daal moom ci boppam gonga. moom ci boppam moo gonga nga xamante saa bu xëyee day diglu émission bu mag bii di jommet. ñun suñu jëmmi bopp dañoo am problème yoo xam ne suñ la waxoon ci Kaffrine nga déedéet Kaffrine boo doon def éleveur pour nga yar fa jur munul nekk ndax mun nga yar sa jur ñu ñëw sàcc ko ci say loxo lan moo waral loolu manque de sécurité insécurité totale moo fa am yow mos nga gis benn commandant boo xam ne amul oto bu muy dawal maanaam brigade de gendarmerie bu amul oto quinze éléments moom moom commandant brigade mais loolu insécurité totale la bu ñu la wooyee na la ñëwal kañ la élément gendarmerie di yegsi ci élément gendarmerie amul oto dëkk boo xam ne amul yoon amul bu mooy mooy bi nga xamante ni mun nañ wax ne nii ci wàllum gerte Afrique moo ci ëpp doole ci Sénégal amul benn usine boo xam ne ni day transformer gerte yéen ndaw ñi bu fekkee yéen suudewu ngeen est-ce que jotut ngeen takku ginnaaw xam ngeen fa mu nekk ngeen dem ba àgg si moom ngeen jàkkaarloo moom ngeen ni ko yow yaa gonga mais Kaffrine gonga wut mu dégg xam ko daal dem nañ ba ci moom nañ ko ko ne ko Kaffrine gonga wul yow yaa gongo ah wax ngeen ko ba mu dégg xam nañ fi mu dëkk ñoo dëkk ak moom dem nañ ba mu ñibbisee wax nañ ko ne ko Kaffrine gongowul yow yaa gongo Kaffrine gouvernement bi moo tànn wala waa APR ñoo tànn wala yéen yéen a tànn ki nga xamante ni bu ñëwee moo war a jël kàddu wax si turu Kaffrine dafa am lu ñuy wax conseil régional de la jeunesse bi moom moo ko jiite ci région bi kooku moom moo wax ci turu région yëpp maanaam région yi kenn ku nekk ci jiite sa conseil communal de la jeunesse moom moo wax donc suñu borom dogal Baye Ndiogou moom moo ko jiite ñun bi ñuy dem benn papier nekkoon feuille de route bi lii la moom ba mu wax dafa arrangé président mbaa xam nga ne dalal nañ leen ñoom président dalal na leen ci ci ci ci ci palais bi nii après bi mu waxee gonga ba pare bi mu waxee gonga ba pare ci suba démb démb démb la leen président recevoir seneen su affaire bi la recevoir ndax moom damay laajte ndax président seneen su affaire bi la doon wutal liggéey wala déet àndoon ngeen ak moom jox ko kàddu mu jàkkaarloog président Macky Sall wax fa waxi boppam bàyyi leen yéen seneen su euh, baax na jërëjëf Baye Fall. Walfadjri à Kaffrine 89 point 0 Walfadjri à Kaffrine noonu ma jigéen. Kaffrine Wana Gong bu ñu sukkandikoo ci kàddu waa ji waa ji nag am na droit de réponse su déggee élément bi bu ko neexee mën na jokkoo ak jommet indi ci ay leeral ginnaaw ba mu ne Kaffrine Gong daal nee nañu président recevoir na ko ca palais ba mm-hmm. waaw. Mm-hmm. waaw soo bu lii la ñu naan nag gis nga buñ boo nekkee ci mbooloo ñu doyloo la wóolu la tànn la yabal la dangaa war yóbbu dangaa boo demee lañ la yónnee danga kaa war a yóbbu ba mu mat parce que yóbbal la kenn waxu la nga ne nga dem nga nga defal nga nga wax fa sa waxi bopp te nit yi léegi en général bu ñuy li ñuy wax si fañ fa fa fa mbir mi xewee base ba bu ñu fa waxee li ñu fay wax ba noppi ba ba tënk la ne la yow demal soo demee nga waxal ñu suñu lii soo demee nga dem fa nekk fa di ja jàmmasanteeg di wër euh, loo xamante ne ni peut-être après président bi dina la recevoir euh, keroog rek yéen a ngi fi invité waa jooju au moins sax kooku ba mu demee wax na ay doléance am teg ci mbiru boppam. Sénégal nag lii moo tax du dem mukk parce que nit ñi au lieu ñu dem wax fa li nga xamante ne nii moom dégg li mu wax nee na ñaari nit bokk benn jakarta jakarta nga xam ne journée mën nga xëy sax doo am. boo wàccee boo si jëndee mais commandant boo xam ne Jakarta lay war nag mi ngi noonu mi ngi noonu amuñu sax oto yu ñu yu ñu yu ñu Sénégal li fi nekk ñu war ko defar il faut il faut il faut nit koo xamante ne nii am na dara am na ay ambition wala am ay objectif moo ko mën a régler waat parce que lii ñu nekk nii jamais mu mu mu ñoom ñiy toog fii nag di wax président bi liggéeyul liggéeyul bis demee ba jàkkaarloog moom mm-hmm. ñoom ñooy dem di ko wax di ko wayal ay maamam te loolu c'est pas normal c'est pas ah. ñoom dañoo am betteel ci waa waaw loolu nag kon ñoom ñoo ma bett man. ah ñoom ñi am mbetteel ci waa dañ lay wóolu yow nga def. nañ koy wóolu mais xaatim nañ xaatim nañ lañ bëgg mu wax ko président ak jafe-jafe. déggoo déggoo li ñu wax yëpp nee nañ booyu Ablaye Sow la. waaw mais booyu Ablaye Sow warut a mën a taxaw ci wet président wax ay doléances su Kaffrine. xam c'est pas noonu mënta ne xam nga tamit am na loo xamante ne bi tamit euh, mu ngi mel ni tey. Mm-hmm. ñu waa Thiès yëpp dajaloo. Mm-hmm. jox Abdou Mbow seen kàddu na ko waxal ñu sunuy ñaxtu <laughs> ndax bu demee dana ñaxtu. c'est que xam nga non mais c'est que damay wax rek comme xam nga Abdou Mbow booy la suñu ne ko waxal ñu sunuy ñaxtu. eh Abdou Mbow du booy de. Eh. <laughs> booy la Abdou Mbow. yaa ngi dégg kooku est-ce que waa ji mag na ko waa ji jiite réew mi mag na ko. <laughs> yaa ngi dégg. waa c'est que. Euh, loolu mooy li nga xamante ne bii mooy. mais euh, boo dégloo kàddu gi alaaji nee na ñoom bi ñuy dem parti yëpp àndoon joxante bopp dem parti yëpp mënuñoo ànd. waa ñuy nangu waa ji di ko jiit di jiite di war a wax ci kàddu yi. c'est que ñoom dañoo dama waroon a dégg avant lii. mu am ay ñaxtu ñu ne kooku di ñëw. Ah. pour waxal ñu du moom lañu soxla soxla ngir mu waxal ñu parce que du ñu waxal suñu problème. donc dañu waroon a wax loolu avant que lii di am. Hmm. loolu ah. bu ko waxoon doon na am sens quoi. daal ne am na ku war a ñëw di wax bu boobaa sax waa bu ñëwee di jël parole sax bon du saf nit ñi quoi parce que. Hmm. c'est parce que jiitu nañ ko. mais alaaji waa ji xasloo wuñ ko dañ koo wax loo rek. ay problème mais du ko wax quand même. du ko xam nañ ni fooy boobu foofu la yam bu ko téyee ne amul benn problème non dina kooku li mu def sax dafa gën parce que dañuy ñëw fexe na ba neutraliser euh, jeune jeune. Kaffrine Kaffrine yëpp. ña bokk ci yeneen parti yëpp mu neutraliser leen. fexe moom ba daa dee ñëw ba ñooñu noppi di ko déglu. Mm. mu ñëw nag mm. ba yegg nag ne leen eh, kii gongo. dégg nga lim njëkk wax sa waajo xam may ma sant sa sa sa jàmbaar yi. ma sant sa jàmbaar daal di sant jàmbaar ji muy ganaam bi nga xamante ni bi <laughs> ganaam la mm. nga xamante ni jàppale na ko mu ne ko xaaral ma santal la sa sant sa jàmbaar ji Sénégal ba noppi nag ne ko Kaffrine nag moom wax dëgg fa yàlla eh, gongo parce que mais nag eh, kon daal Saalum ak la ko féete yëpp daal moom moom gongo Saalum daal dox na Saalum Saalum moom xam naa ni Saalum moom émergé na waaw ah ma jigéen dégg nga élément démb tey déggaat nga ñi koy wax ñëpp kat xam nga ni li li li ñu ah. li ñu bëgg président bi dégg ko rek loolu la ñuy wax ah, mais alaaji waa ji nga yaakaar alaaji xamul ni gars yi dañ koy use yaakaaroon loolu xam nga affaire yi àddina bi fi mu toll nii tey hmm. boo toogee seetaan journalu télé yi waaw nga seetaan journal RTS mais day mel ni yaa rien bu xew ci dëkk bi dëkk bi ah, jàmm lépp ngi dox lépp ngi tegu ci yoon hmm. nga seetaan journalu kii mel ni dëkk bi dara doxut. waaw dëgg la. léegi nag yow mii sénégalais. lan nga sentir ndax dëkk baa nga dox wala doxut. mais yow mi naan taxaw ne moom man mii sénégalais kat boo waxee ne dëkk bi doxut ñu ne la da ngaa far. waaw dëgg la ñële dañ naan non dafa far. si RTS a ngi nii li mu ne. Mm-hmm. RTS daan na woy woy tout marche très mm-hmm. RTS moom lépp gong. Mm-hmm. waaw. waaw tampi moom mu ngi ci yeneen télé yi. waaye gong mi <laughs> RTS. RTS moom doo fa dégg tampi. waaw laa ji nag ñoom dañoo yebal RTS. ndeysaan. mi ngi mel ni rek télé yi jël seen doléance jox RTS. ah wax nga dëgg. wala ñu jël seen signal loolu seen ne ko waxal ñu. seen signal lañu jël bu ñu demee. Hmm. ba yegg RTS war a wax. waaw ah. <laughs> man président audiovisuel dox ma. <laughs> télé yi amuñu problème. télé yi amuñu benn problème amuñu benn jafe-jafe. waaw laaj waaw waaw baax na génn leen balaa <laughs> <laughs> Mbeng la ak ma jigéen Jóob ak euh, bu suba lay amaat incha allah numéro Jomet nag euh, bu ngeen wootee di ngeen jot Baye Assane 75 la 449 23 23 75 449. 23 23 75 449 23 23. Ablaye boobu moo leen di jàngal xabaar yi tous après ngeen am DJ Prince mu wéy ak yéen ba midi incha allah asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. adduna ma xàkkaloon ku may digal lu baax ma def la sama noon weddi li ma doon fa ma jóge woon.